kon mbokk yi ñu suivre ci Leewtoo TV fu ngeen mën a nekk rek ñu ngi leen di nuyu di leen ziar 100 pour cent lamb comme ni ngeen ko xamee tey nag dañoo fas yéene leen indil koo xam ne nii mooy patron Babacar parce que mën naa ne su ma téye micro rek ginnaaw yàlla daal lépp si moom la jaar buñ ma xamee moom la mu ñu koy wax Ibrahima fay bës buñ ko waxee nag xel yi dina dem ci pay-per-view mais dinañ suñu xel dina dem tamit si Lutte TV ak BP Actu ak yeneen structure mu àndal ay seen affiche ak yoom ñoom seen yooyu am nag coow lu fan yi ci mbirum Boy Bambara jàppal bàyyi la yooyu ñu bëgg nag ñun mu leer moo tax tey ñu ñëw doxantu si fekk ko këram fas yéene waxtaan ak moom mais tam pay-per-view bi sax dinañ ci waxtaan ak moom parce que nag daa mel ni waa làmb xaw ma dañ ko bëgg a adopté xaw ma mais lu ci mën am moom mën na ko leeral Ibrahima maa ngi lay nuyu di maa ngi lay fay bu baax a baax Babacar di nuyu aussi sa caméraman bi nga àndal muy Talla maa ngi leen di baax a baax. maa yaa ngi si jàmm. maa ngi sant yàlla alhamdulilah maa ngi nuyu aussi ñu ñu seetaan yëpp à travers Leewtoo naka réew mi mu ngi neex. ah sant yàlla réew mi de mu ngi mu ngi mu ngi nii daal am na ci ñu mu neex yaakaar naa ne ku ñu gis yow fu mu toll nii xam ni sa affaire baax na quoi. kon da yaa ko baax. ah en tout cas fu toll nii lex yi génn na de. gëj nga Canada. waaw waaw waaw gëj naa fa tuuti nag daanaka ça fait plus d'un an que maa ngi Sénégal fii nii. kon daa mel ni Sénégal dàq Canada de. ah non liggéey bi rek liggéey bu la jàppee daal liggéey bu la jàppee doo mën a def ay bouger yu bëri mais xam nga suñu xel daal mu ngi fa bu baax a baax. dafa am lu luñ lu ñu bëgg mu gën a leer mais balaa ñu ciy dugg dañuy dugg ci combat bi xam dafa passé sa relation ak Luc Nicolaï lu ko indi ak lu ko dëgëral tey ba tax mu mel ni daal Luc ak Beuz dafa am relation bu xam ne seen diggante bu bokkul sax ak làmb. waaw Luc Nicolaï moom daanaka nit ku baax la nit koo xamante ne vraiment euh, ñu ngi liggéey depuis combat Balla Gaye de Gris Bordeaux parce que tey jii pay-per-view bu ñuy def ñu indi ko fi Sénégal bu ñu ne moom moo ñu ñëkk a wóolu ànd ceeg ñu daanaka loolu rek wane ni que am na ay relation yoo xamante ne vraiment yu yu sincère la yu poussé parce que pay-per-view doo ci ànd ak nit di ci liggéey tey vraiment wóoluwoo ko parce que dafa nekk loo xamante ne kenn xamul fii nu muy doxee nekk na ay mbirum technique mbirum xarala yu bees yoo xamante ne tey jii pour nga ànd ceeg nit liggéey ceeg moom jox ko confiance cent pour cent mooy am nga vraiment nit ki am ngeen ay relation daal yu sincère donc euh, ñu ànd ceeg moom liggéey ci premier combat Balla Gaye 2 Gris Bordeaux mu nekkoon combat boo xamante ne amoon na réussite parce que defoon nañu vraiment beaucoup de promotion ci combat boobu à travers site bi di luttetv.com donc def promotion bu rëy combat bi am réussite waaye sax mu amoon ay quelques coow ci pay-per-view comme technologie bu bees la mu nekkoon loo xamante ni indi na ay quelques confusion waaye teewul loolu. terewu ko bu muy tëggaat combat di grider 2 Reug mu wóoluwaat ñu àndaat ak ñun te teewul itam même bu ñu demee liggéey ak yeneen promoteur tamit euh, jàpp na ni luy doxal làmb la bu ñu ñëwaatee ak moom te war a liggéey ci Gris 2 Reug Reug amul benn yoon bu mu ñu ne yéen waroo leen woon liggéey ak ñeneen donc jàpp na ni que daal moom nit koo xamante ne la ku sincère la daal. Hmm. léegi nag fi ñuy ñëw combat bi mu mujjee yéen na ci nekkoon ñu gis ci wàllum téléthon jëmale woon ko ci Boy Bambara ñuy dégg ci li ñuy gëstu que ni encaissé ngeen ci lu war a jot si lu war toll si 4 million mais trois 300000 lañ ci versé booy Bambara ay coow jóg ci xaalis ba dañ ko def nii dañ ko def na yow defe naa yow loolu yaa ne ko responsable wala déet loo ci mën a leeral ñi lay suivre ci Leewtoo TV. waaw xam nga tey jii ñun dañu ñëw ñu ne làmb autrement bu ñu nee làmb autrement nag mooy làmb ni ko doon defee. lañu bëgg ñu mu ñu indi ci ay coppite moo waral tey ñu ñëw concentrer suñuy effort dugal ko déjà ci réseaux sociaux yi tey jii yaakaar naa ñëpp màndi nañu làmb ak foo munti nekk ci àddina grâce à Lutte TV grâce à Leewtoo ñoom Dakar ak ci Sénégal tey jii ñun am nañ touche bu bees bu ñu indi ci làmb mais nag est-ce que dafa war a yem ci ñuy joxe contenu kese ñu ne déedéet. bu ñu ànd ak Luc Nicolaï mu am xalaatu tey ji sargal ku mel ni booy Bambara am xalaatu tey ji dimbali ku mel ni booy Bambara ne tey man duma jël peut-être sama xaalis di ko jox booy Bambara ndax chaque weeru koor mu ngi ko doon def di yëkkati xaalisam di yónnee suukaru koor Boy Bambara te waxu ko kenn mu ne léegi damay fexe bu ñëpp booloo joxe seen xaalis foofu lay gën a efficace mu am xalaat bu rafet ne tey ji maa ngi jëm ci benn combat maa ngi am ay mbër yoo xam mën naa ne woo face à face ñu toog ci weeru koor gi defal téléthon Boy Bambara tey Sénégal yëpp rafetlu ko aussi mu ñu ñu def téléthon bi ñu am ñu bëri ñu wootee ne dañuy joxe wax dëgg yàlla balaa ñu faa jóge sax am na ñu yónnee seen enveloppe mais balaa lendemain bi tamit am ñeneen ñu woote joxe xam nga le ministre Matar Ba joxe ku mel mel un million et cetera et cetera et là on a rassemblé ay ñu bëri sénégalais ay 1000 francs 1000 francs 100 francs 100 francs par Orange Money am na benn ñu joxe ñëpp am nañ seen numéro téléphone ñu ne recevoir nañ lu tolloog 4 millions 500 mille à peu waaw xam nga tey mun na am ay cent francs deux cent de différence donc quatre millions cinq cent mille sur les quatre millions cinq cent mille reçus nag lépp mu ngi fi cash la lu ci des nag tey ji boo xoolee am na ñu woote woon ne damay joxe cinq cent mille keneen woote damay joxe deux cent mille keneen trois cent mille am na leneen lu tolloog tey ji quatre millions cinq cent mille encore yoo xam jotaguñ ko lu duggagul parce que affaire bi total bi bu ñëpp joxe wee war na mot ci neuf millions mais quatre millions cinq cent mille dugg na ba pare à peu près te baa ngi fii léegi nag euh, comme dañu concentré woon ci combat bi te booy Boy Bambara tamit nekk nit koo xamante ne vraiment feebaram bi xaw na ko sonal ba def na fi trois opérations ici au Sénégal malheureusement trois opérations yëpp dafa échoué. trois opérations dafa échoué nit ku def trois opérations fii nag mu échoué dañuy naan peut-être naka la ñuy def pour évacuer ko ci yeneen dëkk peut-être foofu lay gën a chancewee waaw yu mel ni Tunisie Maroc France ñu waxtaan ci famille bi ba famille bi entamé les démarches mais comme moom feebar bu ko dal day laaj muy def ay pansement donc ñu ne pansement yooyu am na infirmier buy ñëw këram di ko suivre ak tamit nit ku nekk xam nga ni feebar il faut il faut vraiment ku feebar talul lijjanti xaalis ku feebar talul joxe dépense donc am na lu ñu woowee frais de subsistance yoo xam ne dina mën a continuer di fonctionner ñu laaj famille bi yéen ñaata ngeen xalaat ni fu mu toll ñu ko génnee ci xaalis bi jox leen ko jébal leen ko di mun a vraiment am seen euh, mun a père bi mun a def ne ah bu ñu amoon 300000 ça allait bien par rapport à ci xaalis bi yëpp joxe ba pare xaalis bi ñu ko joxee amuñ ci solution mu nekk loo xamante ne par exemple euh, dañuy xalaat nii jékki-jékki ne nañ ci utiliser cent mille deux cent mille ñu ne nañ bloqué xaalis bi jox ko oustaz Iran Ndao moom bu téyee xaalis bi bu fekkee nee nañ évacuation bi c'est cinq millions ñu xool lu ci manqué ñu xool nu koy lijjante dolli ko bu fekkee si 10 millions ñu xool lu ci manqué bu fekkee mot na nag ñu yóbbu ko bu fekkee 2 millions la itam ñu évacuer ko 2 millions le reste famille bi jël ko mais ñun on se on vraiment on a lavé nos par rapport à cet argent là du suñu xaalis ñu ko xaalis booy bambara la mais nit ki tamit doo ñëw defal ko téléthon rek te doo ko accompagner am nga ay relations yoo xamante ne peut-être mun na la permettre mun nga jàppale ko gën ko jàppale donc moo tax ñu ne on l'accompagne tey ji te on est en étroite collaboration la famille par rapport cela li ma la wax yaakaar naa looloo fi jotaguma am. kon daal su ma la déggee loolu ndigalu famille bi ci ngeen waxtaanee ak ñoom ba déggoo ci loolu mais léegi actuellement da ngeen a pare pour yóbbu ko wala déggoo ngeen loolu ak famille bi wala médecin bu koy faj wala yu mel noonu. waaw pas plus tard que démb rek maa ngi jokkoo ak son neveu Euh, parce que tey loo xam-xam sàmba ni ñu koy waxee sàmba gën la xam boppam noonu la tey ji ñoom ñoo gën a xam feebaru Boy Bambara ñoom ñoo doon dang-dangi ak moom di dem ak moom dans des hôpitaux dugg ak moom fu ne donc ñoom ñoo xam les médecins ñoom ñoo xam exactement c'est quoi la procédure pour l'évacuer à l'étranger ñun lenn rek la mooy ñu fëgg benn buntu ñoom ne buntu bi dëgër na ñun ñu mettre la pression parce que nit ku nekk am ngay relation pour buntu boobu ubbeeku tey ji xaalis bi manqué ñu ñu lijjanti encore xaalis bu ñu motteluwee donc ñun ñu ngi en collaboration ak ñoom man yaakaar naa ni sax journal bu bind affaire de trois cent mille bi ci biir leeral na au la démarche quoi tout est clair mais xam nga nag en général les Sénégal nit ñi ci titre yi rek la ñuy yem te loolu moom c'est ce qui est dommage nañu xool mbir bu mel nii je pense que bu doon leneen sax mais mbir bu mel nii nañ xool ñu ñëpp nañ lañ koy mën a rafetalee quoi waaw comme ça beneen yoon ñun bu ñu jógatee pour am euh, pour euh, pour def lu mel nii pour envisager idée yu mel nii vraiment ñu mun sawar quoi. Hmm. maanaam daal kenn bañ ci wax wala muy jéem lu leen di décourager ci bu ngeen bëggee dimbali ci jafe-jafe ya mu nekk. waaw non xam nga nit ki sax moom mënul ñàkk mu am ñoo xamante ne dinañ la dinañ la bëgg a décourager yu mel noonu mënul ñàkk mais quand même euh, juste nañuy xool lu ñuy bind. ñu xool ñun nekk ci presse bi lan la ñuy bind ak naka lañ koy bindee ak même bu fekkee au fait on dit toute la vérité à l'intérieur de l'article mais au fait dans les titres nañ xool naka la ñuy argumenter titre bi bañ a def forcément luy attirer rek mais et que vraiment ku ko dégg mu semer la confusion dans la tête des Sénégalais quoi fi may mujj ak yow ci côté boobu mooy actuellement est-ce que waxtaan ngeen ak ay médecins yu ne comme ni nga ko waxee Tunisie wala Maroc wala France foo xam ne yéen tey bu doon famille bi noonu pare nañu déggoo ngeen ak ñooñu loolu ci loxo famille bi lañ nekk loolu ci loxo famille bi lañ nekk en général tey jii su nekkee dangay ngay jëlee kenn di ko évacuer du Sénégal di ko yóbbu ci beneen dëkk en général médecin am fii sax dafa am ay mots yu muy def ak yu mel noonu pour faciliter le visa donc médecin am bi tam moo lay wax yan structure foofu noonu ñoo ñoo habilité à gérer cela donc loolu c'est c'est c'est c'est côté famille bi ñoo koy gérer ñu ngi déggante ak ñoom daal waaw loolu la. mais su loolu amulee bu fekkee ñoom loolu mënta am kon xaalis bi da ngeen leen koy verser. non bu fekkee loolu mënut am booy bambara fii ñu continuer rek di xool nan lañ ko yan pexe lañ koy fajee fii nii yan pexe lañ koy fajee mais xaalis bi ak nu mu munti doon c'est-à-dire xaalis suñu loxo xaalis dem ci oustaz Iran Ndaw parce que moom moo doon def émission bu tudd Grand Cœur téléthon bi nag bu ñu ko defee téléthon bi dañ koy booleeg dañ ko dañ ko booleeg entre guillemets Grand Cœur waaw grand téléthon bi lañ ko booleeg Grand Cœur donc démb woo naa waa Sen TV tay yëpp maa ngi leen di woo pour dajeeg oustaz Iran Ndaw pour verser ko cette somme là parce que dañ ne woon ñoom dañ ma ne woon ma téye ko ba rassembler tout après léegi suba incha allah on va on va pour cela quoi. léegi nag fi may ñëw mooy pay bi yaa ko indi Sénégal xam naa foofu la ñuy jeexale maanaam inspiration bi fan la jógee ak lu la poussé ba nga gis ne làmb dañ ko war a yóbbu ci beneen sens pour développer ko ci neneen. waaw xam nga nit ki moom li nga bëgg rek ci la yàlla di nattoo daanaka moom boo xoolee ñun ñu nekk depuis tout petit nekk ay amateur yoo xamante ne dañ doon dem làmb tout le temps amoon aussi ay xam dañu bëgg a làmb doon seetaani làmb ci stade yi donc du ñu yóbbaale nekk xale bu ndaw ñu ñu ñu màgg di seetaan et puis dem am yàlla may ñu ñu jàng am xam-xam ci ci wàllum informatique ci wàllum technologie pourquoi pas tey jii fibre patriotique boobu animé animé ñu ñu nekkoon bitim réew doon doon doon doon jàng bëgg a ñibbi si Sénégal ne lu tax ñuy tere ñu ñibbi si ñëw investir suñu réew ñëw jàpp ci ci ci suñu sport national et et tant d'autres ah ñu newuñ ci làmb rek ñu ngi ci yeneen affaire yu bokkut ak làmb mais làmb dafa nekk suñu patrimoine ma am na am nañ problème affiche yu mag a mag donc ñu ne il faut ñu innover il faut ñu ñu ñu innover fexe def fi système boo xamante ne mbëri dinañ mën a bëre daanaka démb rek boo seetaanee Balla Gaye 2 mu ngi koy wax nee na moom dina gëm nañ dina dem ba cachet ba fayeeku cachet wu 500 millions mu ngi koy wax waaw waaw ndax pay per bi donc loolu sant yàlla la début bi nag yombul tout début est difficile mais gis nañ ni que kat euh, combat Gris 2 Reug Reug bu mujj bi vraiment euh, am na beaucoup d'amélioration waaw am na beaucoup d'amélioration noonu la mbir loo ko defee benn ñaar ñett yoon nga gis ni que dina commencer vraiment di di di avancer ndànk-ndànk te am nañ yaakaar ni bu ñu continuer nii pay-per-view bi vraiment dina mën a occuper une place très importante voire même remplacer intégralement les sponsors yu nekkoon ci làmb ay doomu sénégalais ñoo ko seq ak yow wala ay tubaab wala. non non ay sénégalais ñun ñëpp vraiment ñu ci liggéey wax dëgg yàlla euh, ay sénégalais yoo xamante ne ñu ngi nekk ci diaspora bi ñoo xam ne nekkoon nañ ci bi ñu ñëpp teg bokk bëgg-bëgg ñu ñëpp euh, vraiment bëgg suñu réew tax ñu ñëw booloo mais tamit amul lenn looy def ci àdduna te tubaab yi dugaluñ ci seen loxo lu lu mag c'est-à-dire que à un moment donné am na fi ngay toll yor yenn structure informatique yi tamit foo comprendre que foofu la informatique gën a développé woo donc am nañ ay ay yu nekk Canada yoo xamante ne ñu ngi liggéey ñoom euh, ci ci projet bi di pay per view bi mais les concepteurs du projet leader projet bi ñoo xam ñoo nekk ci kanam vraiment ñooñu ñëpp ay sénégalais lañu quoi. en ah, commençant par yow léegi bu ñu ñëwee ci coté parce que tamit am na xam dañ koy xëy na gën a leeral ñuy suivre mooy que ni dañuy gis ci combat yi comme vidéo yi ngeen ne dugal leen midi vidéo bi wala une heure ñiy xëtt ndigal bi wala ñu mel noonu ñuy xëy xëy ñu ne gisatuñ seen vidéo loolu yéen la Ibrahima kan wala ñan la. waaw <laughs> loolu yaakaar naa c'est c'est une question ciblée quoi am na <laughs> mais mais li ma li ma la mën a wax mooy tey droit à droit droit droit d'auteur dafa am solo droit d'auteur tey jii ñun sañ-sañ bu ñu amul ci maanaam dem ci compétition yu mel ni Ligue des champions wala yu mel ni coupe du monde di jël di ko filmer di ko teg en direct ñu am sañ-sañ boobu di ko def ci làmb ji parce que làmb ji promoteur bi dafa yëkkati ay centaines de millions investir ci làmb ji di ut ay moyens yu muy rentabiliser ci moyens yu muy rentabiliser yoonu mu ne di def pay-per-view bu dee day def pay per view nag yow ñu ñuy diffuser làmb ji en direct làmb ji jeexagul sax ngay génnee vidéo làmb ji mais boobaa kenn du jënd ci yow boo nee jënd loo xamante ne yaa ngi koy am en temps en temps réel di gis ubbi rek gis vidéo yi muy leer nañ mais soxlatul ngay jënd mais loolu moo tax nag ñuy jox site internet yëpp yoo xamante ne ñu ngi am accréditation ak télévision yeeg yëpp ñu leen di wax ne leen yéen kat am nañ heure bi ngeen xamante ne war ngeen ko xaar pour soog a léegi nag ñun dañu am ay partenaires yoo xamante ne loolu mooy seen liggéey il couvre le championnat d'Italie ak ay combat de boxe yu mag a mag comme Mayweather McGregor yooyu yëpp couvriroon nañ ko partenaires yooyu nag ñoom xamuñu maa Samba xamuñu maa Demba ñoom vidéo combat bi dugg na te warta dugg mun nañ ci bloquer sa compte YouTube ak Facebook wala boog mun nañ ci supprimer sa vidéo jox la avertissement te yaakaar naa ni loolu dara jaru ko buñ la waxee daal règle ne nii lay doxee fexeel nga respecter loolu nga seetaan Youssou nduur seetaan Wally Seck ay pap Diouf ñoo ñëpp di ay porteur de voix ku ci nekk ak ñeneen nit yoo xam ne mën nañ leen a lim ñu taxaw ne loolu nañ ci ngoy surtout Youssou Ndour nañ ci ngoy loolu bi nga ko seetaanee nu mu la def. seetaan la yow tamit nga wax ci. <laughs> non man moom wax naa ci mais xam nga ñee ñoom ak ëpp voix xam naa ne xam nga Youssou Ndour moom international la ñoom Wally Seck ay Pape Diouf ak yooyu ci làmb kenn ëpp la voix ci làmb ñu ngi lay dégg donc nitu làmb nga donc yow boo demee ba wax ci rek yaakaar naa loolu rek doyan na mais c'est-à-dire que pay-per-view boo xoolee ñun bu ñu koy ñëkk xalaat toog nañu deux ans trois ans di ko togg di ko togg pour mu ñor man ak samay partenaire bu ñu ñëwee ñëkk cee waxtaan ak Luc Nicolaï comme c'est un c'est un homme de défi nit koo xamante ne dafay gis lu bari automatiquement dafa dafa dafa dafa dafa ànd ci idée bi gëm ko ñu ànd ak moom dem seeti Bougane Bougane Gueye Dany xamante ne moment boobu noonu ñu ngi war a def Balla Gaye 2 Gris Bordeaux Bougane génne ci tamit ay idées yu exceptionnelles boo xoolee keroog maa ngi koy tooñ ci dernier face à face u Gris 2 ma ne koy muy waxu ko pay per ma ne ko yow de xam naa bu ñuy déposé ci droit d'auteur pay per view bi yow di ne sama pourcentage ndax am na ay idées yoo xamante ne moom génnee na ko ci ci pay per view boobu noonu ñu wëlbatiku demaat TFM ñaganduur génnee ci yeneen idée léegi ñu ngi liggéey ak 2STV yi ci ak tamit Albourakh Events baay Ndiaye ñoom baay Ndiaye ak ñoom Issa Ndiaye yaa comme génnee ci encore yeneen idée donc loolu mooy wane ni pay per view en fait ñëpp gis nañ ci seen bopp ñëpp ñuy liggéey ci axlu làmb gis nañ ci seen bopp te ku ci nekk mu ngi ciy apporter une touche boo xamante ne jàpp nañ ni que bu bokkee ci pay per view bi na tax pay per view bi gën a jëm ci kanam. fi ñu jeexale mooy nag combat bi nga xam moom moo dëgmal si muy diggante Boy Niang ak Lac de Guiers boobu tamit yaakaar naa PPV lay doon te defe naa yéen a ngi ci liggéey bi actuellement fu ngeen si toll. waaw Boy Niang Lac de Guiers dëgg la lay doon yaakaar naa combat yu mag des si saison bi yëpp PPV lay doon euh, ñu ngi ci liggéey bi ñu ngi ci phase promotion bi e je pense que li liggéey bu ñu liggéeyoon ci Gris 2 Reug rek moom la ñuy liggéeyaat ci Lac de Guiers 2 Boy ci côté technique bi parce que gis neen ni Gris 2 Reug Reug ñu ko ñu ko defee. vraiment amul woon benn coow nit ñi am nañ ci satisfaction te vraiment structure yu bëri jàppale nañ ñu ci donc liggéey boobu rek la ñuy la ñuy la ñuy tollanti ci Lac de Guiers 2 Boy Niang incha allah pour mu mun a mu mun a mu mun a dem ñu gis ni que vraiment sénégalais yi dinañ mën a seetaan en toute quiétude quoi yu nekk fii et dans la diaspora aussi. bés am na mbër. mbër amoon naa ko waaye léegi fu mu toll ni amatuma ko. kan moo newoon sa mbër. bëri woon naa ay mbër de mais est-ce que <laughs> no bàyyi nañu ay anciennes gloires lañu. ay ancienne gulaar lañu fu mu toll nii ba bàyyi na ñoom. am na soxna. amul soxna nag. lu tax. ah loolu yàlla àdduna noon lay doxee dangay gis ñu am ñu amagul ak ñu am ñaar ak ñett ak yooyu non man amagul ma nag. am na koy génnal xanaa d'accord nga jéggal ma de damay laajte rek dama bëgg a xam. ah Babacar loolu moom est-ce que xam naa ci loolu li ngay wax ni man xaw ma ko sax mu mel ni chinois nga may làkk fu toll nii <laughs> mais am na am na ki ma bëggoon may de. man ah. ah yaakaar naa de. waaw de mu ngi fi. mu ngi ak yaay wala. mu ngi ak kon après ñu dem jëli ko. waaw. <laughs> wala ma laaj Lamine. waaw léegi Lamine moom yaakaar naa moom bàyyi ko côté Thiès yooyu noonu rek. <laughs> léegi looy tàggatoo ñu lay suivre ci Leewtoo TV et puis tam kontaan ci toog ak yow parce que li ñuy wax rek dañ koy waxaat duñ taay di ko wax ñun suñ ñu xamee ginnaaw yàlla ak yonent bi ak suñuy wayjur yow yaa tax loolu ci yow la jaaree dañ la koy sant tam di la ko gërëme looy tàggoo. waaw lu may tàggoo di gërëm aussi euh, internet yëpp ñu suivre gis naa ñoom moom du ñu taay dañuy seetaan suñuy vidéo yëpp Leewtoo Lutte TV Dakar Actu Sénégal et cetera yaa a tellement de sites internet yoo xamante ne ak arène bi comme ñu ngi yëngu ci wàllum làmb donc euh, boo xamante xamante ne vraiment ñun amuñu seen fay ñu ñuy seetaan amuñu seen fay ndax nit ki yow tu n'existes pas yow ñi lay seetaan ñooy tax ngay existe en fait donc loolu vraiment satisfaction la boo dugalee ay vidéo nga gis si yenn vues yi satisfaction la que projet Pays bu ñuy def ñu gis nit ñaa ngi ñu ciy accompagner aussi di gërëm sa sa caméraman bi Talla moom laa toujours souriant quoi Talla moom boo ko boo ko rek déjà même boo meloon sax da ngay kontaan quoi que bonne humeur muy dégager la yow itam di la di la encourage engagé te aussi di la féliciter parce que tamit lenn moom xam nañ ko mooy nitu défi nga quoi nitu défi nga li ngay def gëm nga ko te yaa ngi ci nekk à fond te man boo xam naa ni peu importe yàgg naa la ko wax yaakaar naa foo mun munti nekk ci àdduna rek dañ la war a dégg waaw dañ la war a dégg da ngay wax ni peut-être affaire yi ci ñun suñ loxo la jaar mais bu jaarul yoon suñ loxo itam day fël rek parce que nit ki lépp looy def rek boo ci àndee conviction rek da ngay da ngay génn quoi incha allah jërëjëf Babacar